فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لي بانا kawni lahu hamdi bi mastabaana salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe rawatina yéen ci dëkk bu sell bii di Touba Mbacke di yeewoo fii ci euh, Touba gaar bu ndaw ñu ngi leen ñëwaloon fii rek eh, ci màggalu ko Serigne eh, Djily mu Serigne eh, Fallou macha allah Serigne Galas mu Serigne Djily mu Serigne Fallou nga xam ne moo ko jiite ndax mooy ab xalifaam ànd kook ay rakkam ku ci mel ne Serigne Abdoul Ahad Mbacke mu Serigne Djily mu Serigne fàllu Mbacke ñu taxawee bis bu am solo bi nga xam ne moo di màggalu Serigne Djily mu Serigne Fallou. Ah, ku ne xam na ne ah, sëriñ jiili Mbàkke mu sëriñ Fàllu jàmbaari lislaam la woon waaye jàmbaar la woon joo xam ne ah, Cheikhul Khadim rek ko ñoroon maam ji rek la doon dund ak alxuraan ak xasida waaye tamit ku ne xam na ne sëriñ Jili mu sëriñ Fàllu am sëriñ Fàllu la woon loolu jullit yi ak yoonu murid wépp mën nañ ko seede ndax ñëpp xamoon nañ loolu ci moom bi yàlla dogalee nag mu uh, jóge fi uh, njabootam gi nga xamante ne bii uh, tawaat fakala macha allah mu jëwuñ pusa bi murée rawatina nga xam ne mooy xalifa Serigne Jili mu Serigne Fallou Mbacke moo ko taxawee taxawaay bu mat sëkk tawaat fakala macha allah waaye fa bàyyam bu baax ba tegoon tànkam rek foofu la ko Serigne Galas teg ànd koog rakkam yi nga xam ne itam tabaar fakala macha allah kenn ci ñu ñu leen mën a tuddal muy Serigne Abdoul Ahad Mbacke mu Serigne Jili mu Serigne Fallou Mbacke ñu yenn woon fi tey ji nag waa télévision télévision ma faatihul bichri fas yéen toppal lépp loo xamante ne bi rek moo jëm ci wàllu màggal gi nga xam ne moom la ñuy defal suñu jili mu Sëriñ Fàllu Mbàkke fas yéene ko toppal fii ba ba ñuy yeewee ko rek lépp lu fi luñ fi taataane rek ci ay euh, tawféex ak ngëneel danañ leen ko jottali macha allah ci kanam tuuti incha allah ومن خالف كل تاب في الليل ali

لدلي يدي وقلبي له عدله بليلا سقيمة لرسول الله بلي يا رب صل وسلم سرمدا كراما على وسيلتي الحسنى إلى حتى صلاة بلا هدى waaw ni ñu leen ko waxee woon rek téléspectateur euh, Bichri TV ñu ngi fii ci gaar bu ndaw macha allah ci kër Serigne Djily mbake mu Serigne Fallou. ci bisam boobu rek nga xamante ne bi tawarfukal macha allah ku ñuy wax Serigne Gallas Mbacke di ab xalifaam moo koy taxawee ànd koog rakkam yu baax yi macha allah ku mel ne que Serigne Abdoul Ahad mu Serigne Jili mu Serigne Fallou Mbacke ñu koy taxaw muy bés bu am solo ñu ñëwaloon fi rek ñun waa mat Fatihul Bichri ngir bëgg leen koo jotal ngeen jot lépp loo xamante ne rek jëli taataane nañ ko fi. ñu ngi toog ak suñu baay macha allah di magum murid magum taalibe Serigne Mourtala Diop. sëriñ Moutalla Diop mi nag nañ bëgg ko dékk micro ngir mu am lu mu ñu wax lu mu ñu xamal eh, ci sëriñ Jili mu sëriñ Fallou moomu la salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna Bintu ñu ngi leen di nuyu lu bari lool. nuyoo bi nag ñu koy ñu ci jël sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Touba di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool. gannaaw loolu ñu nuyu sëñ Fall mi nga xam ne moo moo toog toogaayu sëñ Jili sëñ Abdou Khadir ak mboolem njabootu sëñ Abdou Khadir gépp di leen ñaanal ñu yàgg fi te wér. di leen xamal ne sëñ jiili moom bisam wax ci yomb na jafe na ndax sëñ jiili moom sëñ jiilim ñëpp la kenn ku ne la nga ci am rek nga xam waaye mënoo xam la ci sa morom xam ku ko doon wax ba suba it du jeex ku ko doon wax fii ba ba déwén it du jeex nit ku laa biir nit ku tabe woon nit koo xam ne sëñ jiilim ñëpp la woon amoon yërmaande ci ñëpp rek xam xammee wut ab taalibeem xammee wut taalibeem keneen xam na ku ñuy wax alaaji aboot mi nga nekk France mi ngi may ci alaaji ci ci sëñ jiili ne booba yàlla daa dogal mu ñëw France bi mu ñëwee France nee na fanaan fa bët set mu woo leen ne leen damaa bëgg ngeen dem ñëw demal ma ci euh, quartier bi mu wax ci France sax laa fàtte ne ko léegi ne na ngeen dama bëgg ngeen demal fa dafa am koo xam ne dafa sonn lool te doon nit ko war a sonn allah jabu nee na bañ xëyee ñoom ñee ñoom mu yebal leen ànd ak ñoom moom sax dafa ànd ak ñoom kooku nga xam ne yàlla dogal moom dafa da tukki bi mu ñëwee ba ci naari libaane yi xuma naari libaane yi xuma nuñ ko waxaat ci naar yi nga xam ne ay na naxaakat lañ bi yàlla dogalee kooko wàcc ci gaar bi rek daal di gisee naar bi naar bi daal di moom daal ne ko yow jullit nga mu ne ko waaw mu mel ni ku koy teral fekk ne booba daf koo bëgg a jekku pour sàcc ko yàlla dogal mu dem moom naar bi daal dugg ci benn bu boutique rek jënd fa ñaari boisson bu ñu jëndee ñaari boisson yi benn bi ndeke def na ci drogue bi kooku ñëwee nuyoog moom mu daal di koy jox ne ko naanal daal di naan moom naar bi benn bi kooko ba mu ko naanee rek yàlla dogal foofa la mandee moom xamatul fu mu nekk mu dindi lim yor lépp kon li ma lay wax sëñ ji li nga xam ne moom sëñ Fallu mu sotti la ba mu tëddee la gis lépp ba mu xëyee mu wax àlaaji abot ñoom ne leen dafa am koo xam ne dafa sonn damaa bëgg ngeen gunge ma kooko ba nga xamee ne yàlla dogal na mu seen rek gëmewu ko sax nag moom ndax moom gëmewu ko defoon na ne du gis nit ku ñuul bi mu tasee moom daal di nuyoo ak moom daal di sëñ daal di ko yóbbu ne leen nag kii damaa bëgg ngeen jàppale ko waa ji man maa ko fàttali Daaru Musi sax la dëkk dama bëgg ngeen jàppale ko ndax nit doon nit ku war a sonn alaji aboo nee nañu dajaleel ko jàppale ko fa ay ay weer yu néew la am yàlla dogal na am na fa ci lu xéewal gu dul jeex te kooko du taalibeem ci bëtin la ko gis li ma ne seen jili seen jilim ñëpp la leneen la ca am na koo xam ne nee na nee na alaaji aboo dafa ñëw France bi mu ñëwee France yàlla dogal nee na booba aboo nee na ñim ñim nekkal ñëpp ñu nangu seen am nangu seen i bagage jël seen seen bagage yëpp ñu nangu ko yóbbu ko biñ ko yóbboolee yàlla dogal seen jili France bi bi mu fanansee nag gaa yi daal di ne ah ñun kat ginnaaw suñ ji li ñëw na fi doon koo war a jooytu sun sun sun sun sun sun sun mbir yi nga xam ne sun bagage yi ñu nangu yàlla dogal legi ñu daal dem suñ jiil daal waxtaan ak moom ne ko daal suñ bi daal ñun suñu bagage dañ koo nangu bi meen waxee loolu la suñ jiil daal ñu wax leen ndax am na ku mën a wax ak tubaab boobu ñu ne ko waaw alaaji abub da mën naa wax ak moom aboot nee na ñoom mu ne waaw baax na bu subaa rek bu ngeen xëyee nga ñëw ma yónni la ci aboot moom nee na man guddi gi nelawuma ndax defe ne bu ñu demee noonu dañ nuy jàpp ndax booba France ñetti nit wala ñaar nit di àndandoo rek ñu la gisee dañ lay yóbbu nee nañu fanaan fanaan fanaan ba bët seet nee na sëñ bi daal leen woo ne leen ñëw leen ñëw leen nee ma defee ne lu leen lañ jox rek mu daal leen ana ku mën a wax ak ñoom ñu ne ko suñu naa wax ak ñoom mu ne ñëwal dem dem leen bu ngeen demee ki jël bagage yi ko rek sëñ jili moo na yabal nee leen ko nanu jox suñu bagage aboon nee na man maa ngi tiit tiitaanga yoo xam ne ne ñun nan dem rek ñu daal di àndandoo dem biñ ñu ba ci bureau boobu nee na biñu accès alaaji aboon nee na ma daal di laaj nee na tubaab yi daal di ne waaw ah, lu ngeen di wut fii aboon ne leen ah, ñii de lañ jël seen i bagage bagage yi ñu fi jël démb moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy laaj si nee kooku daal di soow nag loolu loolu mu ne sëñ jiile mu ne foo yabal mu ne nga jox nu su bagage ñu ne kuy sëñ jiili kuy sëñ jiili ñoo mu ne ah sëñ jiili mooy sëñ jiili nee na mu laajal kuy sëñ jiili mooy leen sëñ jiili bi muy soow noonu rek seen chef bi dégg ko daal di wàcc ca kaw daal di wàcc ci suuf daal di lii lan la lu ñuy lu ñuy dox fii ñu ne dañ ne xaw ma seen bagage ñu fi jël lañ ne seen jiilee leen fi yebal kooku ne la kuy seen jiili nee na xanaa mu ne seen seen jiili mooy seen jiili rek mu ne kuy seen jiili nee na mooy seen jiili ñu ñoom ñu yàq sax sax foofu rek léegi kooku daal ne dënn dën dënnoom yàgg daal neen waaw seen bagage yooyu ndax bu ñu leen ko joxe fi ñu leen di aay da ngeen ko bàyyi ñu ne waaw daanañ ko bàyyi kay nee na mooy a abot demal ngeen ngeen xool seen bagage nu mu toll ñu dem xool jaloore yooyu suñ jiil def na ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon sëñ jiili ku ci doon wax ba suba it sëñ suba seet na du jeex sëñ jiilim ñëpp la sëñ jiili moom kon kon kon kon kon su ma la déggee sëriñ Mourtala Diop sëriñ jiili am sëriñ Fallou la mu mel ne ndox du bàyyi yoonam te la ca maam sëta koy jël kon bëggoon nañ tamit nga ñëwoon ñu ci diggante sëñ jiili ak njabootuk sëñ Fallou waaye sëñ Jili ak njabootuk sëñ Touba gépp lan moo nekkoon complicité am ak digganteem ak njabootuk sëriñ Touba gépp nekkandoo loolu sëñ Jili moom li doon li nekkoon digganteem ak bu njabootuk sëñ li nekkoon digganteem ak jullit yëpp rek mooy joxe cër ku ko mag rek jox na la cër ku koo xam ne sii rek maanaam féete nga ko mag dara jox na la cër kuy rakamit yërëm na la yiir na la loolu moom noonu la jaboote woon noonu la nekkoon ak njabootuk sëñ tubaa noonu la nekk ak teel bi sëñ tubaa yëpp rek ku ne rek lam la talee rek dimbale na ci ku ne cër ba nga xam ne yàlla jox na la ko it ànd na caag yow jox na la ko ci yoxin wu rafet noonu la suñ ji li meloon ak jullit yëpp rek waaw waaw waaye kay mbokki taalibe yi ni leen ko waxee woon rek di leen toppal euh, bés bi rek lépp ci màggalu ko sëriñ Jili Mbàkke mu sëriñ Fàllu ñi ngi toog ak macha allah sëriñ Galas Kaltoom Mbàkke moom itam kenn dootu leen ko présenté mu sëriñ laaj Baara Fàllilu macha allah moom boo ko séenee muy dem bul ko laaj fu mu jëm moom ci liggéeyal sëriñ Touba rek ak maamam ja sëriñ Fàllu ci lay dox ah, li ñuy wax naan rek la ca maam sëta koy jël dañ koy gis ci moom jamono ju nekk mu teewoon nag ci bés bi nga xam ne kenn du ko laaj lu mu fi def ñu amoon rek ay quelques questions lu ñu bëggoon a am ci yow sa diggante ak sëriñ Jili mu sëriñ Fàllu moomu moomule ak itam njabootam gi mu fi bàyyi si ñoom sëriñ Galas ak sëriñ Blaat sa digganteeg ñoom ak ban témoignage nga ñu man a may rek ci sëñ Djily Fall moom. waaw salaamaaleykum soxna si ñu ngi leen di fay di leen delloo am nuyoo di nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalibe yi di yëkkati sunub ziyaar jëme ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa yoonu murit di ko jaarale ci sëriñ Abo Mbàkke moom Cheikh Abdoul Fadal di kilifa kër sëriñ Falilou waaye di ko teg ci loxo yi sëriñ Fallou mbakke mi nga xam ne mooy kilifa njabootuk Serigne Jiili moom Serigne Falilou di yëkkati nuyoo yooyu jëm ci njaboot gépp nag di ko teg ci loxo sunu rak suñu xarit Cheikh Abdou Lahad mu wàcceel ñu ko ci njaboot bi Serigne Cheikhouna Serigne Baara Serigne Bassirou ñoom ñëpp njaboot bu góor gi ak jigéen bi di leen ziyaare ci sunu bisu wayjur wii nga xam ne mooy sëriñ Jiili moom sëriñ Falilu li ñu war a mën a xam si moom bari na bariwul waaye liñ ci xam xamoon nañu ne sëriñ Jiili nit ku baax la woon jullit xaqan la waaye taalibeeb sëriñ Tuubaa xaqan la woon daan na ko doxe te di ko waxee li ñu mën a seere ci suñu diggante moom ak ay kilifaam ñu ci jot a fekkee ku si néew mooy fonk gum fonkoon ay kilifaam waaye bëgg gum bëggoon ay kilifaam waaye sonn gumu nangu woon sonn ci ay kilifaam doy na ci seere ci diggam ak alaaji Mahmoud Lamine Baara Mbàkke Falilu bari na fu ñu jaar ci ay jëf ak ay taxawaay yoo xamante ci sëriñ Jili la bàyyi ñëw ci sëriñ Baara yoo xam ne doy ne ci seer rek sëriñ baara doomam ma nga ne sëñ alaaji baara la ko tuddee waaye bu dee ci wàllu jëf rek lu nit di jëfal kilifaam lu sëriñ jii li jëfalul alaaji baara ci lu baax xamuñu ko ndax li ci mujj rek sëriñ bi këram gi mu amoon ndindi ci bunt bi booy dugg ndindi keroog ba mu toogee ba xelam nekk ci war koo defar dafa ne naa woo sëriñ ji li wax am naa ci seere waaye na ko sëriñ bi bëggee woon sëriñ ji li defe kon loolu ci fonk sa kilifa la ak jàpp sa kilifa waaye nangoo jël alalam di ko def ci lu baax loolu ñi ko mën a seere bari nañ mu ne ko nit ku woyof waaye ku bëggoon alxuraan sëriñ ji li ku la ku bëggoon lu baax la ku daan ci nit la te yàlla tax eh, yooyu nag boo ko génnee ci doomu aadama ci ab jullit génn ko ci taalibu Serigne Touba dara du ca des yett yooyu ku ko làmboo sa lépp mat na mooy bëgg alxuraan bëgg lu baax te di ko jëf waaye li mu doon nekk nekk nekk ku bokk ci jabaru Serigne Touba ku daan dundal ak taalibe ci jëmmam la ci digganteem ak kilifaam loo xam ne ku ko xam loolu nga koy xamee ku jaxasoo ak moom it loolu rek ngay gis ci moom sonn ci nit na ngir alalam euh, amul woon dayoo yamuwaay mos nañoo dajee dëkk bu ñu naan Amsterdam ca Hollande mbooloo ñëw fa di ko seet si te ñu ko doon seet si ñëpp man la ma ci xam te yëg ko niñ ko mën a wax ñu doon wut si luñ am ci moom lay waaye keroog gis naa mu génn xaalis bu bari di ko waajal di ko jox ay nit sama kanam ndax maa ko fekkee Amsterdam loon ca oland Italie daje naa fa ak moom lu ni mel biir réew mi waxaale wuñ defar aw ñam wu neex te mel ni mu mel ay nit di ko jëfandikoo ñu bari ñi daan jataayoo moom di ko seet si min nañ ko ci moom te loolu dana ànd ak li ñu faral di wax léegi jamono yeewe bu duun waaye yeewe bu duun baax na waaye yéene lim lay yeewee baax na te ñi lim daan yeewee nit ñi yéene leen ko yàlla dimbale ko defal ko tawféex jabootam gi ñaan yàlla sàmmal leen boppam ñaan yàlla gàttandul leen boppam ci tawféex ak sutura tàmbale ko ci Serigne Falilou ku leen gis xam ne am na lu seen wayjur def ci ñoom ci taxawaayu jaboote woo ki nga war a jaboote waaye jaarale ko fi nga ko war a jaarale macha allah yan na yàlla lafal leen cat yan na yàlla suturaal leen yan na leen yàlla yeggaleel seeni yéene ci biir bis bii ñuy def ku ne xamoon na diggante sëriñ jiir moom sëriñ Falilu ak sëriñ Mamor moom sëriñ Falilu ñu naan ko sëriñ Mamor moom soxna say jaxate ñu ko ci fàttaliku waale njaboot bi jël lépp bis bi liñ ci defal sëriñ Jiili lëkkale ko liñ ci defal sëriñ Maam Moor muy lu rafet loo xam ne it am na tàmbali waaye amulub yemuwaay ku xamoon seen diggante xam ni leen yàlla boole woon euh, yàlla dogal sëriñ Maam Moor ab liggéeyam mat bis bi ñëw gannaawam muy at mi ko njëkk a wuute njaboot gi jël lépp bis bi delloo ko sëriñ Maam Moor loolu ñu koy rafetlu. di ci sant Serigne Fallou ak rakkam yi nga xam ne ñoo bokk tënk loolu xalaat ko di ko dundal ci bis bi lu ko ëpp solo ci baax lu ko ëpp solo ci rafetal amul di ñaan yàlla ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy ñaan ci bis bi mu jëm ci Serigne Djily moom Serigne yi lu jëm ci sëriñ Mamour moom Serigne Fallou yal na leen ci yàlla jotale bu bis bi jàllee ñaan yi leen sax di leen ko ñaanal yan na leen ci yàlla jotale te ñu yàgg di leen ko ñaanal te yàlla di leen jotale ci yiw yu ak tuyaaba bëgg gi Serigne Fallou sëñ Jili mën naa jox benn seere bu ndaw rek man am naa am tudd Ngaye Mame Balla ñëwal sama bopp sàkku sil ngir mu tudd sil ma ko te rek mu ñëwee xaw naa mel ne ku jàpp ne alaajo keneen a ko war tudd ko moom ma ne ko man sam yow laa bëgg ko tudd sil ma ko booba yéene lañ amoon ngir jël kam doon tudd tudde ko ko sàkk woon ci mu ñëw tudd si ko bi mu ñëwee ñu indi liir bi mu woo woo ma mu laaj ma ma ne ko Mbàkke sédd nañ la ko mu ne baax na taarfukàl la daal tudd ba noppi daal ne tëf daal ne sëñ Fallou <laughs> waaw ne ma ki tax nga may sédd mooy borom cër bi kon loolu ci bëgg sëñ Fallou la yam te noonu la doon dundeek njabootam gépp rek wax dëgg yàlla daal ñi sax daal di ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy borom tey ak yàlla dolli ay leer dolli ngëneel dolli yërmande sëriñ jiili moom sëriñ Falilu ak sëriñ Mamor ak képp ku nekk ca Barzak ndax yàlla am na ko mën na ko te njaboot gii mu fi bàyyi yàlla defal leen sutura yàlla sàmm leen yàlla yiir leen yàlla gën leen a boole ci li seen wayjur nosoon seen i diggante mooy nekk ay jaamu yàlla yuy jaamu yàlla waaye nekk njaboot goo xamante gi dañuy seey ak a sax ci liggéeyal Cheikhul Khadim yan na yàlla mottali loolu te mu ànd ak wér ak fekke ak tal ci barke Serigne Fallou Mbacke jërëjëf jërëjëf. mu doonoon Serigne Galas Kaltoom Mbacke mu Serigne Alaaji Baara Fallilou euh, ni ma leen ko waxee woon rek euh, Serigne Galas boo ko séenee muy dem bul ko laaj foo jëm fu mu yendu rek wala mu toog fa bis yu mel ni lay doon alxuraan na ko tax a jóg wala xasida wala kenn ci njabootu Serigne Touba gi ci seen ay bis. li ñuy wax rek nawet boo gis euh, maam jalay nuru bokk na jàkk xam ne doomu Cheikh Sidi Mouhamadou Lamine Baara Fallilou la macha allah waaye mu wax itam lu am solo ndax nee na njabootuk sëñ Jili bu sëñ Fallou bi dañoo jël bës bi dara jaale ko kii nga xam ne moo di Serigne Mamor euh, mu sëriñ Fallou bi nga xam ne barki démb la fi euh, bàyyi ko ñu koy jooy te noppeeguñu mu ngay loolu daf lay daal di firndeel na nag kër Serigne Touba wenn say lañu woo xamante ne bii da ngay boole lépp rek leewu wala nga boole teg fa waaye amul roccat amul par bennoo di jàll di dem ndaxte lu mel ne bésub sëriñ jili mu sëriñ Fallou bu ñu ko dee def nii waxtu dellu siwaat ñu di ko def tombeek sëñ maam morom sëñ Fall di doog a génn uh, jamono ñu daal di jël lépp rek daal ko koy cërale loolu dafay firndeel na njabootu sëñ Fall wenn say la ñu ñi leen di toppal rek bés bi incha allah ci kanam. ba tey rek ñi ngi toog ak Serigne Fallou Mbacke mu Serigne aboo mu Serigne Fallou mu yebal ko fii ci bés bi nga xam ne moo di bésu Serigne Djily mu Serigne Fallou Mbacke. nañu leen ko waxee woon rek njabootuk sëñ Fallou gi mën naa ni li bari teewe nañu bis bi kon ñu ñëw rek dëkk Serigne. sëriñ sëñ Fallou mu sëriñ Abo bu ko defee rek mu mën a waxtaan ak njaboot gi leer na ci ay kàddu yu mën a seede ci sëriñ Jili mu sëriñ Fallou. bismillaahi mina seytaani rajiim wa innii u'iiduhaa bika wa zurriyyatahaa mina seytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi assalaamu aleykum wa rahmatullaahi bokki jullit yi bokki taalibe yi teew fii ci ndigalul suñu kilifa sunu yaakaar teeg ëllëg alaaji Abou Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal ak njabootu Cheikh Mamadou Fadal gépp te yóbboo ne ci buntu bi ñu teew fii ci lenn ci njabootu Cheikh Mamadou Fadal bunti kër yi Cheikh Mamadou Fadal yi muy alaaji Jili Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ñaan yàlla dool yàlla yàlla dolli leeram taasuñ ci barkeem yàlla yàlla dolli njëggalam ak yërmandeem tabarkeem sax bi ba faw ci barke Cheikh Modou Fadal euh, sëriñ Abo moo na fi yabal ñu ñëw teew fii ci bis bii nga xam ni euh, bokk taalibe ak njaboot gi ñoo ngi fi bokk teew di jàng alxuraan jàng xasida di ay bernde euh, yéen lépp yool bi sëriñ alaaji alaaji Jiili Mbàkke mu Cheikh Modou Fadal Mbàkke kon nag ñoo ñaan yàlla jot la ko ci yool bi da jotuñu ci caabi noonu suñu borom ngir loolu yërmaane bi ak njëgëram te yeexe na barakat rasulillahi barke si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul barke si Ahmadu Fadal Mbàkke waajuróom eh, ñu waxoon ni it dañ cee boole sëñ Alaaji Mamoor Mbàkke mu Cheikh Ahmadu Fadal li nga xam ne dafay bàyyi ko bu yàggut te doonoon kenn ci sëñ Alaaji Jiili Mbàkke mu Cheikh Ahmadu Fadal Mbàkke mu ci moom nga xam ni bi muy dund da ko daa àndoon ak moom eh, ñu ñu bokk suñu xon Fadal ba noppi jaxasoo ay mbir doonoon benn eh, bi mu sëñ ji El Hadj Jili bi sëñ Jili làqoo jiitoo sëñ Maamoor des fi njaboot gi boole ak njabootam ak njabootu sëriñ Jili eh, def leen ñuy benn ba ci fan yi ci gannaaw yàggul dara rek ñu ñàkk sëñ Maamoor mu fekk sëñ Jili sëriñam ba xaritam ba eh, mbokkam ma ñu mbokk Cheikh Modou Fadal te bu ko fekkee itam njaboot gi yëpp mu sëriñ jiili ak njabootu Cheikh Modou Fadal gi yëpp ak njabootu ñu àndandoo waat doonaat benn fas yéene àndandoo ñaanal leen ñoom ñaar ñëpp ñaan suñu borom yàlla na leen jot ci yool bi jot na ci yaab yàlla na suñu leen taxara leen àjjana at at nañ at nañ seen yërmande di ñaan nag njaboot gi mu fi bàyyi mu Cheikh Modou Fadal mi ne moo ne ci bopp bi Cheikh Modou ci bopp bi ak mboolem bàyyi laat ak ñi ci ginnaawam ñëpp suñu boroom yàggal leen fi yàlla na suñu borom wéral saxal leen fi te lii bëggub Serigne Touba ci ñoom li bëggub Cheikh Modou Fadal ci ñoom di bëggub El Hadj Mamadou Fadilou Mbacke ci ñoom di bëggub suñu waajur yi nekk suñu kanam te Cheikh Abou Baraka nekk ci bunt bi Cheikh Mamadou Basir di jëwriñ ji El Hadj sëñ di di di yore kaddu gi ak mboolem seen i ñëpp ak ak seen doom ak suñuy sët ak ñëpp yàlla na leen yàlla sàmm ñu yàgg fi te wér lépp loo xam ni naanal lañ ko lislaam ci buntu ko Cheikh Mamadou Fadal ñu ànd ko sunu waajur yooyu def ci lu kawe sunu njort ba am ci ngërëmal yàlla sunu borom tabaaraka wa taala am ci ngërëmal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ci barke Cheikh Mamadou Fadel Mbacke yàlla nañu ko yàlla defal sëriñ Ebo daal nee na sant na njaboot gi bu baax a baax gërëm na leen bu baax a baax mi ngi leen di ñaanal bu baax ndax njabootam gu gu muy gu muy pokkari woo la ndax la leen war lépp ñu ngi ci ndax sëmbi naal bu mu fi naalal euh, sëriñ Fallu ci bunt ko sëriñ Touba ñoom def nañ ci seen waar ba mu def ci lu kawe njortoom wala addi yu ñu fi woote wala ndigal lu jógee kër sëñ Tuubaa ñu ngi ko sëñ Fàllu doon nañ ci jàmbaar loolu kenn mënu leen ci kon nag sëñ bi nee na mi ngi leen ci sant leen ci gërëm di ko seetal ñëpp di ko seetal ñëpp di ñaan nag ñaan gi ñi ñaanal waajur yi jiitu moom mi fi nekk eh, yore buntu kër Cheikh Amadou Fadal ñaanal ñuy ñaanalaale ko ci moom mu yàgg fi te wér lool ba lépp luñ ko yéenee mu def ci lu kawe njort moom it lépp lu mu yéene ci ñoom rek mu def ci lu kawe njort ba ko Cheikh Amadou Fadal yi sax eh, wërtoon ñoo ngi koy jégalu ndax sëriñ Fallou Mbacke mu sëriñ Gallas Kaltoum mii ñu fekk kàddu yi mu yëkkati na yëpp yóbbaale na yëpp ndax bu waxaale waxaale ñu waaye nag eh, kilifa ga ñu yónni rek moo waral ñu ñu jox may kàddu waaye na ma bañ a yëkkati kàddu kon nag jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulah. nirata man zalamani falana walintaqamta min ya mawlana مدم كوسي صافيا جذلانا وللأمير قلد القذلانا يلاح يا من لم يزل رحمانا أيا رحيم لأدم أمانا نفيت من أحرجني مجانا بمدح من قد ألك السجانا عدم توجيه مكاره القدر من جك شخص لأبدا محل قدر عدم توجيه مكاره القدر من جك شخص لأبدا محل قدر سرين بارا ak mbooloo mi àndal daayira soppay Cheikh Ahmadou Fadal Mbacke Touba Bogo am nañ mbégte lool ñoo ngi lay ziar bu baax te it ñoo lay dokkeel bu baax ci bis bii bis bi nag day bis boo xam ne sunu bisa ñun waa Touba ko kon loolu xam nañ ko yëg nañ ko jàpp gi ñu jàppit yëg nañ ko bu baax kon nag loolu ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak ci barkeb Sëñ Fallu ñoo ngi lay jégal nit ah daayira bii di waa Touba Bogo matériel ab sëñ Fallu lañ a ah, muy guddi muy bëccëg heure boo ñu soxlaa na moom amuñu soxla ndax ñun kat liggéey sëñ Fallu doo nga mën na ñor leneen ñoruñu suñu àdduna ndax amuñu leneen lu muy Cheikh Amadou Fadal Mbàkke kon nag lépp loo xamante ni Mbàkke mi ngi sa xel mu jëm si ñun Mbàkke na la wóor ne ñun pare nañ amatul dara lañu soxla lu may liggéeyee sëriñ bi kon nag Mbàkke ñu ngi lay ñaanal di sàkku yit nga ñaanal ñu ndax kat ay ndaw lañu mën naa ni dañuy doo a dugg àdduna te it jamono jamono jii rëq-rëq yi bari na tolof tolof yi bari na te lépp nag rawante si ñun ndaw ñii waaye nag ñun ndaw yi nag nañu leer ne yara ak teggin mooy suñu gàllaaj kon nag loolu nañ ci tënk ñun ñëpp. te feddliwaat suñu laxasaay bu baax a baax a baax te xam ne ab murit du wàcc mukk aar bu xëyee daa war a feddwaat laxasaayam tey xaaj tey xaar ndigal fas yéene koo jëfee kon Mbàkke noo ngi lay ñaan nga ñaanal nu suñu poos yii fees del suñu xol yii yaatu lool gën a bëgg sëriñ bi gën a doon ay taalibe yu dëggal te dara bañ cee ba gàkk loolu mooy suñu yéene kon nag Mbàkke kàddu juróomi gudd mënees na koo gàttal ndax waxtu wi xat na tey yitte yi bari na tey jamono kon a xam ne fi mu toll kon ñoo ngi jégalu bu baax kàddu yi lépp lu ci rëq ñu xam na ci man mii la waaye ñii nga xam ne ñoo ma jox kàddu gi day seen lépp mat na lépp lu ci fakk rek man la loolu nag maa ngi koy jégalu bu baax nga ñaanal ñu nag suñuy poos fees dell lépp lu sëriñ bi bëgg kenn ku nekk si ñun rek man koo jëf na na mu waree bis bi nag xam nañ waa ñun waa Touba Baol képp ki fi ñëw ñun nga jàppale ab bant sax boo ko yëkkatee xam nga ñoo ko waroon yëkkati loolu ñu ngi koy xamal mbooloo mi yëpp ñoo ngi leen sant ñëpp di gërëm ñëpp yàgg fi teewee at at yi baree baree baree bari kenn bañ a manqué dara ji Cheikh Moudou Fadal Mbacké kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa daayira Touba Baol sëriñ bi nee na asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen sant di leen gërëm di gën a rafetlu seen taxawaay bu baax a baax. ci kër gi ak njaboot gi. nee nañ gis ngeen xam ngeen ni Serigne Fallou boole woon Serigne Jiili ak waa Touba Bogo. Serigne Modou Moussa Falilou ñëw feddali loolee. ba ci Cheikh Mamadou Lamine ba ci Serigne Aboo mi nekk feddali loolee. nee na diirib li sëñ Jiili ànd ak yéen. ànd ngeen moom ci ànd bu rafet. ngeen def ko kilifa nee na ngeen def ko kilifa def ko jawrin ba liggéeyu Serigne Fallou ba mu ko doon liggéeyaloo foofee ca Tuubaa ba ko lépp rafet te mu nee na booba mu ànd koog yéen nee na bis bii firnde la ci loolee ndax nee na keroog bi ñuy jébbal Serigne ji ab kaamilam ba muy jébbal Serigne Fallou ab kaamilam moo waral bis bii. nee na booba yéen waa Bokol la ko àndaloon nee na bu kon nee bu wuutee bàyyi fa njaboot gi ni ngeen àndee woon ak seen jiili ngeen takk seeni laxaay ànd njaboot gi nee na njabootu seen jiili yépp ci turu Serigne Galas ñu ngi boole seen bopp fas yéene ànd ak yéen ngeen jàppale seen jiili nee na Serigne Fallou nee na ak njabootu seen jiili lépp lu ngeen nekk yéen waa Bokol fas yéene ko ànd ak yéen. ndax nee nañ gis nañ ne lépp loo xam ne nii njabootuk sëñ jili ma nga fi ba ngeen noppee gis sëñ jili ba léegi tegu leen seen tànk da ngeen ko ànd ak ñoom nee na lii bi tey bii lii ngeen def nii firnde la kon nee na ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci barkeb sëriñ Fallou suñ boroom yokk seen i xéewal te yokk seen i wér te gën a seen pas-pas te gën a wéral seen pas-séef barke seexul xadim jërë geen jëf. auzu billahi minash shaytaan auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim yokk rajo bi nee na ñu ko yokk rajo bi auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi ajmain mbokk yi fi daje ñoo leen di nuyu nuyu islaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi di sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci Muhammad alayhi salaatu salaam di sant Cheikh al Xadim radiallahu taala anhu di tàmbalee ay kàddu rek ci ndigal mu bàyyi ko ci sëriñ bi di ko jéggalu itam bu baax a baax la ciy jiitu bala ñoo def dara ni ko sëriñ bi waxe woon lu ñuy def ci liggéey bi lañ ci jiital ay ñaan ñaanal sëriñ Jiiri mu Cheikh Mamadou Fadal ñaanal sëriñ Mamor mu Cheikh Mamadou Fadal ñaanal soxna day Fall mu sëriñ Jiiri te ñaanal itam sëriñ Xaas mu sëriñ Moodu bu sa jang mi nga xam ne doom la woon ci sëñ Jiiri te dëkkoon ak ñun fii ci jàkkaarlook ak ñun sëriñ bi waxoon ne loolu ñuy tàmbali rek ñu ngi jàng faatee bu sell boole ca fukki lixlaas ak benn yéene leen ko ñu doog a àggale liggéey bi mbokk yi yal na leen suñu borom jotale dolli leen yërmande bu baax dolli leen sutura bu baax ndax daaw ci waxtu wi sëñ Mamor ak soxna Ndeye Fall ak sëñ Xaas moom yi ñoo àndoon ak nun bis bi ren yàlla dogal li mu dogal te xamuñu déwén nu muy demee moo tax ñoo ñaan suñ borom yërëm leen te sutural leen ba ñu leen di fekkee incha allah suñu borom boole ñu ci yërmande joojee ginnaaw bu nu sant yàlla bu baax nag di sant sëñ Mouhamadul Mountakha ndawam teew na fi muy sëriñ Jili Bachir di sant sëriñ Abou Cheikh Mamadou faadal sëriñ Galas doomam teewal na ko fi ginnaaw loolu nag cant yi ak ngërëm yëpp rek dañ koy teg ci sëriñ Habibu Cheikh Mamadou faadal mi nga xam ne moo fi teewal waa kër sëriñ Tuubaa yëpp te sëriñ Habibu koo ko xam xam diggam ak sëriñ Jili defe naa doo doo ca sori ndax benn lañu ñu woon doonoon ay xarit doonoon ay wëllëre sëriñ Habibu di ko doxal lool sàmm kóllëre ga lool tamit at mu jot bis bii ànd ak ñun tey kenn ku ne ci ñun ci njaboot gi séq na ak yow loo xam ne sa moroom yëgul kon ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér te di jox nuyoo bi ak kàddu yooyu yëpp dañu koy teg loxoom di nuyu itam sëriñ Abou Mbacke ma lay mu sëriñ Abdul ak képp ku teew ci bi rek ñoo ngi lay nuyu di wax ne kàddu yi du génn yii may bëgg a wax mooy sant ak ngërëm ak soññ rek ak leeral tuuti ci diggante sëñ Jili ak sëñ Mamor sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp di tàmbalee cant yi ak ngërëm yi ci ay rakkam ndax bis bi seen taxawaay rafet na ci lool sëñ Abdou laxaat mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ànd ko ak ay rakkam sëñ Cheikhouna ak sëñ Baara ak ñoom ñëpp rek ak soxna maam Xawa ak soxna Mbène ak ñëpp rek seen taxawaay rafet na lool sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen di sant soxna yi sunu waajur yu jigéen yi tamit sëriñ bi nee sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax a baax di sant dëkkandoo yi nga xam ne tamit ñoom la ñu nekkal ci koñ bi sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Moustapha Balla Joor bu ñu ko tuddee rek mel nañ tudd nañ ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi jël cant waa koñ bi nga xam ne dañoo génn seen kër lépp teg ko ci loxoom di leen sant di leen gërëm ci seenu yaatal waaye itam di sant mbokki sëriñ Jili yi sëriñ Cheikh Diop sunu maam mi ngi nii toog ñoo ngi koy nuyu di ko di di di jàll cant gi ci moom sëriñ bi tamit wax na ne mi ngi santaat di beral ak kenn sëriñ Abou Cheikh Mamadou Fadal yónnee na fi ay ndaw euh, yónnee fi ay teraanga kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm waaye itam di sant waaw mu yebal fi doomam sëriñ Galas sëriñ bi nee na mi ngi mi ngi koy sant di ko ko gërëm di ko ñaanal loolu itam sëriñ bi nee na mi ngi sant képp koo xam ne amoon nga yéene teew ci bis bi walla nga amoon yéene jëf ci sëriñ bi nee na mi ngi lay sant mu ngi lay gërëm ñu ngi ciy tudd nag du mën a ñàkk mooy daayira yi di ci jiital daayira dong tarbiya yi nga xam ne ñoo bàyyi woon seen ndey bàyyi seen baay nekk ci àll ba liggéeyal sëriñ bi bu xew amee ci kër gi ñooy njëkk bàyyi seen lépp futteeku lépp lu ñu def ñoo koy njëkk tàmbali sëriñ bi neen mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal di sant daayira Gare bi nga xam ne képp ku ñëw ci kër gi ñoo lay dalal te ñoom sëriñ bi joxoo leen digal ci màggalu Kazu Rajab bi ñu koy taxawee sëriñ baa ngi fedd lu ndigal loolu yi di leen sant seen ci bis bi li sant daayira waa dakaar cant gu wér a wér ndax ñoom tamit ñoom la sëriñ ji joxoon ndigal ci màggal gu mag gi ñu cee am taxawaay yu rafet comme nii ñu koy dëgmale mi ngi yeesalaat ndigal loolu yi di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay ci bis bi fépp daayira boo jógee ci dëkk bi wala ci réew mi rek nee mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di ci boole waa Touba Bogo yi nga xam ne bis bii li ko waral mooy bi sëñ bi joxe kaamilam te Touba la amee woon ñu dëkkoon ak moom dëkkin wu rafet ab daayiraam daayira waa boobu gépp teew nañ fi jëf-jëf ju rafet sëñ bi ne mi ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye li sant daayira waa sëñ mamoor bu Cheikh Mamadou Fadal démb ba tey ñu ngi fi ànd ak sëñ Moustapha andi fi ay teraanga yu baree baree bari sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax tamit nee na itam mi ngi sant mbokki taaliba yëpp ak soppe yëpp ci liggéey bu rëy bii nga xam ne moom lañu ñu tàmbalil ji li muy defaraat kër te loolu bu ñu ko doon misaal ñuy wax ne mooy taxawaay taxaw taxawaayu toolu ba mooy taxaw taxawaayu toolu ba ndax dañuy wax ne jëf lu baax wala yéene lu baax boog yéene lu baax du soppeeku méthode bi ngay jëfe mooy soppeeku ku ne xam na ne saxaaba yi li tax ñu tuddoon ay saxaaba dañoo tur deret yor ay jaasi ak ak fet mag ñi tamit lu tax ñu tuddoon ay cheikh dañ doon bay ay tool di def ñu ni demee waaye fii jamono toll ku ne xam na ne tuur deret amatut bay tool tool àll bi ngi am waaye bëree tut waaye liggéey yu ñu liggéeyal Serigne Touba lu mel ni dakk ak bëggam yu mel noonu mën nañ caa jaar ba am ci la mag ñi amoon kon ñi nga xam ne ñoo taxawee kër gi muy taalibe Serigne Jili bu ko yeesal di ko defar Serigne bi neen mi ngi leen di sant mi ngi leen ci gërëm di leen xamal ne nag lu tuuti la ci liggéey bi ab tàmbali rekk la waaye liggéey bi yaatu na lool na képp ku ci jëf mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm képp ku ci am yéene jëf te amoo ko mi ngi mi ngi lay ñaanal waaye gis na yéene yëpp mi ngi ñaan suñ borom àggale ko ba mu ne coleet ba liñ ci bëgg ñu amee ko liñ ko bëggee ba yéene yëpp àgg nee na yëg na ko te xolam sedd na ci lool nee na itam damaa fàtte woon mi ngi sant sëriñ Moustapha moom sëñ Basiru ak sëriñ Moustapha moom sëñ Alaaji baar waaye bi mu tuddee sëñ Habibu rek dugalaal nañ dugal nañ ci biir nee na mi ngi sant taalibe yi bu baax Cheikh Mamadou Lamine Baara dara wax naan lépp lu sotti rek taalibe yi la dañ ba ci jumaa ji sax kon sëñ Fallou nee na lépp lu sotti ci kër gi yéen taalibe yi la nee na kon mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal bu baax ñuy fàttali ne itam bis bi tamit dañ ciy fàttaliku sëriñ Mamor mu Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne digganteem ak sëñ ji li kenn umpaliwu ko ndax ba ñuy ànd ñun ñi fi teew ñëpp jiitu na sunu gane àdduna defe naa umpul kenn tamit seen diggante nag bu ñu ko doon misaal dañ koy misaale ci diggante Moussa ak Harouna wala ñu misaale ko ci diggante Cheikhul Khadim ak maam Thierno Ibrahim euh, seen njaboot nag wala seeni taalibe bu ñu ko doon misaal dañ leen misaal ci mu muhaajir ak ansaar yi kon sëriñ bi nee na mi ngi sant sëñ Moustapha bu baax mi ngi sant njabootu ak sëñ Mamor bu baax mi ngi koy gërëm bu baax tey xam le ne ñun waa kër sëñ Jili ñu ngi doog a ñàkk waajur ndax sëñ Mamor bi mu fiy nekk bi fi sëñ Jili di nekk sax taxaw bi maam Thierno Ibrahim taxawoon sëñ Cheikhul Khadim moom la taxawoon sëñ Jili lu mosaa xew ci kër gi xel yëpp day dem ci Sëñ nañu wooye Sëñ Mamoor bi fi Sëñ Jili bàyyi ko tamit njaboot ku ci am ab xew-xew sa xel ci Sëñ Mamoor lay dem te daaw waxtu wi fekk na ko fi kon loolu yi tamit war nañu yokk ak góorgóorlu ñu xam ne comme ñoom ñoo ñu gën fuuf te bàyyi koon nañ fi nañuy defaraat suñuy xool te raxas ko te xam ne la leen yóbbu duñu fi ba tey ñu bàyyi xel ne fii àdduna toll nag képp ku fi bàyyi ko doo wéet fa nga nekk ndax fu Cheikhul Khadim nekk Cheikh Mamadou Fadal nekk fa borom bis bi nekk fa Sëñ nekk fa ak ñeneen ak ñeneen képp ku leen fekk doo wéet kon nañu góorgóorluwaat bu baax na ko sëñ jil daa waxee rek raxas xol yi kenn ku ne li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom bañ a tooñ kenn te ku ñu tooñ ñu jéggal ko te yàlla tax sëriñ bi ne itam mi ngi soññ dongo yi ci ñu góorgóorlu lu baax ci seen islam góorgóorlu baax ci seen diine lu baax ci liggéey soyal xadim bi liggéey soyal xadim lu bari la waxtu wu diglee ci lu jëm ci lu jëm ci sëriñ bi gis na na ci taxawee lu mel ni université bi ak yu ni demee waxtu sëñ bi diilee rek sëñ bi nee na yéen a ngi ciy jëf yéen a ngi ciy góorgóorlu kon nee na mi ngi leen sant bu baax mi ngi leen di gërëm bu baax di profité di sant waa Touba ca kanam teew nañ fi di ci soññal mbokk yi tamit ñu xam ne liggéey bi sëñ Touba la ñu jàpp ci bu baax a baax te xam ne liggéey sëñ Touba la te sëñ jili diine da ko ñoroon lool ba ku ko xam xam nga ne ay misaalam bari na ndax kër gu mos a sanc def na fa jàkka bu fa deful jumaa wala bu fa deful jàkka na fa néeg bu ñu tuddee jàkka ja liggéey sëñ Touba da ko ñoroon lool ku ne gis na ni daa taxawee ci xelkom ak yeneen ak yeneen kon loolu yi misaal rek bu mu doon joxe nañu góorgóorlu lu baax gannaaw suñu jiiri dem na suñu mamoo dem na nag ñun njaboot gi ñoo fi des sëriñ bi na ne mi ngi xamal ñëpp ne leen mi ngi feddali kóllëreem diggante suñu jiiri ak suñu mamoor di ko jaarale ci suñu Moustapha di xamal mbokk yëpp ne leen bis bi lépp luñ ci def ci ay ñaan ak lu mën a doon nañu jàpp ne suñu jiiri ak suñu mamoor lañ ko boole te it ñëpp jàpp xel ne bàyyi xel ne bis bii nii lu weesu tey saa bu ñëwatee buñ ko annoncé buñ ko annoncé wul nañ jàpp ne màggalu suñu jiiri ak màggalu suñu mamoor la ñuy boole kon sëñ bi nee mi ngi fetli kóllëre gi kóllëre googu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaan kenn ku nekk la ko sëñ ji lim daa ñaan rek taalibe boo gis muy wéy ñaan rek mooy ay soxlaam mooy itti ak jàngoro nee na képp ku fi indi jàngoro ak na jàngoro ji lëmbi àdduna sëriñ bi nee na la ko borom saafara bu baax a baax te jeexal ko su ba kenn ku ne si sa yéene nee na itam képp ku am itte sëriñ bi nee na mi ngi lay mi ngi ñaan ay jum gën a xam yal na ko saafara te it xam na ko yëg na ko mi ngi ñaam suñu borom saafara ko te itte jooju suñu borom faj ko dimbal la bu baax a baax bàyyiwul kenn lépp lu ci gàtt rek wala lu ci manqué rek sunu matadi la waaye nee na mi ngi so mi ngi mi ngi mi ngi sant ñëpp daayira ba daayira ba dëkkoon ak moom ci daaru Marnaan mi ngi leen sant di di leen di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di sant soppe yi ak wëlëre yi ak ñi nga xam ne dañoo jox soogum lool seen naa suñu njaay géey léegi bu ñu ko tuddee rek dana moom ñu bàyyi soppee suñu jil yëpp kon sëñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal ñu teewee ko at yu bari te ñëpp fekk ko ay at yu bari ba li ñuy li ñu ñaanal seen ji li nga xam ne mooy bis bi dama fàtte sax waaye ñoom laa waroon jiital mooy daara alxuraan yi nga xam ne bis bi li ko waral ku ne xam ne ko mooy ci la seen ji li joxe woon ab sëñ Fall ab kaamilam mu santoon ko ci gërëm ko ci te moom mu ci daa ñaanal mu ko daa mu ko daa def di ci ngandale Cheikh Mamadou Amine di ci ngandale sëñ Mour Moussa Falilou mu bàyyi koo fi ñu ñu tànn bis boobee kon nee na mi ngi sant daara alxuraan bu baax ñu teew fii di jàng ak ñu nekk seen daara di jàng ak kuréelu xasida yi ñëpp mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp di ñaan balaa diwén yàlla bu kenn manqué ku ne am na itta jooyu weyale waaye mi ngi ñaan ci barke Cheikh Serigne Djili di ñaan ci barke Cheikh Khadim miinu waa dama daayira Miftaahu Sahaada mu donga dugg na ci donga rek nee na mi ngi sant daayira yëpp rek képp ku ñu tuddul daal sunu matadi rek moo tax waaye sëñ bi neen sant ñëpp gërëm na ñëpp mi ngi ñaan ñu fekk at yu bari yàlla doolu noo doolu la yërëm ñu fi bàyyi ko doolu a sutural te ñi nekk tamit ci àdduna suñu borom doolu loo dimbale bu baax ba liggéey bi nga xam ne moom la sëñ jili simboon àndoon ko ak sëñ Mamor nee na yal na ko njaboot gi àggale mooy sëñ Fallou ak sëñ Moustapha ñëpp xam ne rek benn lañu koo ci gis rek boo gisee doomi sëñ Mamor xamal doomi sëñ jili nga gis boo gisee doomi sëñ jili xamal doomi sëñ Mamor nga gis ndax seen kóllëre dafa jaxasoo woon lool firnde la mooy sëñ Mamorum sëñ jili mi ngi toog sëñ jili sëñ mamoor mi ngi toog waaye ñun ñii kenn ku ci nekk sëñ Mamor naa yow loo xam ne sa morom yëgu ko wallaay lazim kon nañ xam ne sëñ jili sëñ dem nañu waaye ba tey ñi ngi fi ñaari kër yi benn lépp lu ñuy def bis ni tey incha allah fas nañu ko yéene ànd ni kër Cheikh Khadim ak kër maam Thierno Ibrahima ànde woon sëñ bi nee na noonu lañu ko fas yéene doxale incha ak taalibe yi tamit sëñ bi nee na mi ngi leen di boole yéen waa kër sëñ ji ak waa kër sëñ Mamoor ngeen jàpp ñi jàpp seen bopp ay muhaajiruun jàpp seen bopp ay ay ansaar ñu nekk ànd di yëkkateendoo di di tegandoo ba waxtu wuñu leen fekkee rek incha allahu taala seen xol dana sedd ci ñun nee na lii mooy ndigal li te lii mooy yoon wi kon yàlla nañu suñu borom gi ñu jub suñu borom dugal ci bismillah jeexal ko ci alhamdulilah ñoo ngi jéglu bu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayu yaa xayyuum salli bi salaam ala lasi jaa bi ahsanil kalaam ala lasi jaa bi ahsanil kalaam salli wa sallim wal taqabbal sal kalaam mun naa laa xaarisul xoroofi bima yafooxu dhann min mawroofi li naasimil xoroofi xalid rabaa yaa man kafaa wusaal xuruuri wa nubaa waliyu yaa raxmaanu yaa raxiimu yaa xayu wa yaa xayyoomu yaa mukrimi yaa naajaaka abduka alxadiimu saa salaa مسلما على موسى سيل خلا ناجاك عبدك الخديم موسى صلاة مسلما على موسى سيل خلا barke borom Tuuba moom Cheikh Mouhamadul Fadal bayit yi ma yëkkati li muy gàtt lépp yëg na ko fa mu tëdd ndax ak bëggam la woon dafa ñëw amerig New York fekk ma fa woote bis bu rëy ca cent seize jumaa ja fees del maa ko fanaanee jàng ba mu del siwaatee ma nekk Italie dafa lijjanti sama numéro ba ñu jox ko ko mu woo ni ma ñëwaat naa de waaye dama la fee fekkul te sama bis bi dama ko fata yéene defaat ma doon la ci xaar nag kañ lay jàpp bis ma ne ko jàppal bis bu la neex Mbakke mu jàpp bis ma jëlaat sama billet jóge Italie ñëw Amérique fekk si jàng yee jàng ko kon dama wax ni kooku am naa lu ma mën a seede ci moom te wolof yi dañuy wax ni isaa du final xayru jaasal man nu li ko wolof di fiire mooy aw yiw bu ñu ko naree suul rewal te dagan na lu baax foo ko fekk fu ne na ko seede te koo xebal bisam yaa ko tooñ sëriñ bi nag bis bi rek la am muy bisub ñaanam ñu ñëw fekk fi ay bokkam muy sëriñ Habibu moom Cheikh Mamadou Fadal keroog ñaan gi ñu ko jëkk a defal fii moom sëriñ Jiili sëriñ maam Moor mii ñu doon tudd léegi seen diggante sori lool maa ko doon jottalil keroog ñaari baat la wax tàmbalee sotti ay xéewal yeggalewal kàddu ya fa la ñaan nga yem kon seen diggante am naa lu ma ci mën a seede fi may daaneel nag sama kàddu muy jëmm ji toog ci suñu ginnaaw muy sëriñ abibu na ko ñëpp ñaanal fan wu gudd wànd ak wér ba yéene ji muy yéene ci dëkkub sëriñ Tuubaa bii maamam bindoon wax ne ad'uuka an taj'alahu daara tuqaa wal ilmi wa diini wa daara lirtiqaa wa jannatan li saalikin muriidi wa jannatan an haatikin mariidi wa manfaan li kulli haadin muslimi wa madfaan an kulli haadin mi moom mu sal aw dàllam fas yéene def Tuubaa moom mu jëm ca kanam kooku jar naa ñaanal fi may daaneel ak sama kàddu Mbàkke mooy juróom-ñett a ngi nii baax na ci doom yi soxna yëpp waaye tasoo ci yaakaari taalibe yi ku ma ko laaj ren yàlla ma ko laaj déwén juróom-ñett yi bi ci jëkk mooy xam-xam bankal sa baaraam aw fit fulla doylu jom yaru jub ak am njariñ ma firil la ko boo amee xam-xam kenn du la mën a nax jàng dafa baax boo amee fit kenn du la mën a xëbal adduna daa bari yu xëble kuy def lu la xëbal nga ne pëccet ci xel ngay dëkk te ku dëkk ci xel du taxaw bay taxawal dara boo amee fulla kenn du la foye boo doyloo kenn du la mën a jënd boo amee jom la song daaneel ko boo yaroo ku la gis bëgg la boo jubee kenn du la toroxal boo amee njariñ doo wéet nit day am njariñ ki gën a dof ci nit ñi mooy ku ñàkk njariñ te bëgg ku ko yëg fi may daaneel sama kàddu mooy dafa am doom bu ñuy wax si déem doom bu tuuti la ñu bari màcc nañu ko fii siddéem soo koy màcc loo xiif xiif del yàbbi doom yi gis nga si déem àll bu mu ne am na yoonu foo jëm ñu koy raasi te doom bu tuuti la njariñ sañ tey mus a tax poftan doom bu réy lay am ci buntu kër gi lay sax te dañ koy romb nit day am njëriñ wasalaam aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cheikh mouhamadul fàllilu yaag mbooleem say rakk sëriñ abibu mbàkki fàllilu mii tey toog fii ci biir jataay bii ak waxtu wii mu fi ñëw mooy seere ne ñaan gi ngeen doon ñaanal sëñ jili li ma li ma bëgg a wax mooy waxtu wii nga xam ne moom la fi sëriñ bu Mbàkke fàllilu egsi fekk ñu tàmbalee wàccaayu ñaanal mbooloo mi fekk sëriñ Fàllilu nga dajale mbooloo mi mel ni lu leen di bëgg a yeewi mooy wane ne ñaan gi ngeen doon ñaanal sëñ Jiile sëñ Maamoor suñ borom nangu na ko ndax ñaar ñoo ñi ngeen di tudd ah, kon xanaa tënk kàddu yi rek jox sëriñ bi sëñ Fàllu damaa wax ne sëriñ Abibulahi Mbàkke mii toog fii ak waxtu wii nga xam ne moom la fi ñëw fekk ñu mel ni lu war a yeewi mbooloo mi ngir kenn ku nekk delluwaat ci yitte yi loolu mooy listixaare ne li ngeen doon ñaanal sëñ Mamoor ak sëriñ Jiili suñu borom nangu na ndax ñaar ñoo ñi ngeen di tudd li ma ci xam ngeen ci xam ci seen diggante ak sëñ bu Mbàkke mi li ma ci xam mu wér na ma ne sëriñ Abibu Mbàkke mi sëñ Fàllu bu ngeen toogee di tudd sëñ Mamoor ak sëñ Jiili yaramam dana daw lool ndax jaxasoo woon naa ak ñoom jaxasoo goo xam ne ñi mel ni man xam nañ ko te yéen xam ngeen ko ci suba bu fii ni mi ngi bëgg a ñëw di leen wan ne bis bii moog yéen yéen a ko bokk di leen ñaanal bu baax a baax a baax itam ci àndandoo gii ngeen àndandoo doon benn rawatine mu dikk fekk sëñ aboo toog ne bis ni ki tey na ñëpp xam ne lépp lu ñuy defati sëñ Mamoor ak sëñ Jiili lañ koy boole loolu moom wér na ma ne luy neex sëriñ Abibu rek looloo ko gën a neex moom kon ginnaaw dafa war a yëkkati ay kàddoom te moo fi teewal fi mu ne nii fii jotaayam bii sëñ mu Muntaxa xalifa général des mourides teewal fi sëñ Abul Baraka doonte ndaw yi ñëwoon nañ tey moo fi seen i jëm sëñ Abibu kon mbooloo maa ngi nii bëgg a taataan rek nga ñaanal leen ndax mbooleem ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ Jili di liggéeyal sëriñ Touba di liggéeyal sëriñ Falilu ba fii ne mbooloo mi dafa yokk waaye dara wàññi kuu ci teew loolu dara ci moom ndax kër gi ak sa kër benn la lépp lu yendu ci sa kër gi dana fanaan ci kër gi dana fanaan ci sa kër rawatina kër sëñ Mamor kon ñu bàyyi rek mu barkeelu ci ay kàddu bu ko defee soog a ñaanal mbooloo mi ñu yeewee ko sëriñ bi nee na auusu billaahi min a saytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim laa hawla walaa quwata illa billaahi aliyul asiim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokk yi fi teew yépp sëriñ bu nee na mi ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam sëriñ bi nee na dana jafe lool ci moom tey mu yëkkati fi ay kàddu ndax li ko daloon ci tabaski gi moom lay bañ mu dalaat ko nag ci jataay bii moom de nee na kilif kilifaam yooyu mu bokkoon ak ñoom nekk fii te gisatu leen te mu wóor ko ne dana leen fekki nee na loolu tiitaanga lu rëy a rëy la ci moom njàqare la lool ci moom itam nee na alhamdulilahi rabbil alamina sëriñ fàllilu nee na mi ngi lay nuyu lu baax di nuyu ak mbooleem koo bokkal sëriñ Jili rek di nuyu sëriñ Moustapha ak mbooleem ko mbokkal sëñ Mamor nee na bu leen tuddee yéen ñaar mel na ni tudd na ñépp nee na tey dangeen a def wenn saan woo xam ne dafa jam ñaari picc alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Jili nee na ñëpp a jaxasoog moom waaye rawatina sëñ Mamor nag nee na bis bii nag du bisum naqar bisum mbégte la bisum sant yàlla la nee na ndax bis bii sëñ Jili ci la amee ngërëmal sëriñ Fàllilu ci la ko joxe woon ab kaamil te sëriñ bi moo ko warloo woon ne ko képp ku bindu kaamil teg ko ci sama loxo gàddu gàddu naa la barke boo tëddoon di nelaw itam sa ajo dana faju mu ne sëriñ fàllu dafa war loon képp kum jaboote saa soo bindee ab kaamil teg ko sama loxo bii gàddul naa la barke doonte dangaa tëdd di nelaw daan ne yaar moom yoonu sëriñ fàllu nekku ci mooy xam-xam akuk taalibe kenn ku nekk yaa koy wutali sa bopp xam-xam moom ku jàngut doo xam ak taalibe mooy wanaasu rek kenn mënu koo defal kenn mooy pas-pas mel na ni sëriñ jiili moo mujje jox sëriñ fàllu ci doomi sëriñ fàllu yépp moo ko ci mujj joxu kaamil ak bi mu ko joxe kaamil bi ak bi mu demee ëpp ñeenti weer sëriñ bi wàccub liggéey bi mu ko joxee kaamil bi lim ko ci daxaloon lépp sëriñ jiili gis na ko daf na ko xaw tuuti rek waaye lépp a ngi noonu ku ne xam na ne sëriñ jiili toogut jataayub sëriñ Faliilu waaye toog na ko ci baatin nag ñépp xam nañ ko loolu lu soob suñ borom la nee na dem na ba jëmmi jamono ku tudd ki fi nekkal sëriñ Faliilu boo noppee sëñ yi nga ci teg ñépp xam nañ ko te ñéppi nanguloon nañ ko li ko ko may dëgg dëgg dëgg mooy jikkoom jikko rekk am solo kenn koo gis mu mel ni sëriñ jiiri ci jikko ju rafet nee na du wax ne loolu amut waaye gis na ci sëriñ jiiri lu mu gisu ci ñu bari nag li gën a jafe ci àdduna am ajo di faj ay ajo loolu jafe-jafe la ñaare nit ñi buñ fajee sa ajo duñ la may ajo walla buñ la mayee ajo duñ faj sa ajo moom ñaar ñëpp yàlla defoon na ko ci moom yéen ñëpp lu ngeen mën a seere ci moom sëriñ Jiili li muy seere moom mii moo gën a wóor ndax danoo bokk ndono ñoom ñaar ay nit buñ bokkee ndono la ñuy wax dëgg lay doon ragalante ginnaaw andiwu ko fi tagg leen andiwu ko fi nee na li muy seere yàlla rek tax mu di ko seere alxuraan moo waxoon ne wala taktubu sahaadata bismillah nee na nit ki bu ngeen gisee lu baax te séeréwu leen ko day mel ni ab góom ci xol day yàq ab xol nee na moom nag bu gisee lu baax daf koy seere te yàlla tax am na baat boo xam ne bu du woon ak saar wii mu jàng léegi damay yaakaar ne amut ci àdduna mooy iñaan nee na bu jàngutoon xul a'uuzu bi rabbi falaxi day yaakaar ne moom ak kañaan amut ci àdduna loolu la yàlla def ci ñun nee na moom mi ngi nii dafa nangu lépp lu mu yéene doomu aadama yàlla na ko yàlla jox te jox ko ko ko nee na kon du ma yéene nit mukk ab safaan waaw nee na li tax yaramam daw mook sëñ Mamor ñoo daan bokk di nekk ci jataay bii nee na sëñ Mamor di ko sagal moom sëñ abi bu naa ko kàddu yi yaa ko yaa ko yor yaa koy jottali te lépp sëñ Mamor a ko ëppale bu dee at moomu ko ëppale bu dee xam-xam moomu ko ëppale bu dee ak baax moo ko ëppale ak taalib bi moo ko ëppale nee na lépp xam na ko ñu daan bokk ñoom ñaar di toog fii di ko seereel sëriñ jiili sëñ jiili dem na sëñ Mamor dem na nee na moom mii itam day yàlla na yeex waaw da nga de waaye na yeex lool rek baax na jërëjëf yàlla na yeex waaye àdduna kenn saxu fi kon seen jataay bii ngeen def alhamdulilahi rabbil alamin seen xelam dal na bu baax yaakaaram itam yokk na xam na ne bu ngeen fi desee dara du yàqu nee na ngeen jàppoo gën a nekk benn rek nee na kër gi de kenn mësu leen a atte te kenn du leen atte ndax kenn ku ne ci ñun li yàlla def ci ki ci des nangul nga ko te yéene nga ko te mu yàgg lool itam na nee na lim waroon a jiital nee na moom la mel ni lu ko mujje waaye ayut turu sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñu sëñ tubaa ci kaw suuf nee na mi ngi leen di nuyu ci turam ni di nuyoo ci turu kilifaam sëñ Abol Baraka nee na léegi bi muy ñëw yëgal na ko ko ne ko fii la jëm si mu ne ma yebal naa sëñ galas mu dem fa waaye man mi maa waroon a demal sama bopp kon demal nga teewal ma fa sëñ jiiri may moom mooy man loolu sëñ Aboo wax mu daan ne ko sëñ sëñ jiiri mooy yow mii yaay moom kon boo demee teewal ma fa kon boo fa teewee mel na ni teewal nga fa njabootu sëriñ Touba gépp ak njabootu sëriñ fàllu gépp nee sëñ Fallou moom amatul njaboot ñépp njabootu sëriñ Touba la lu dugg ci sëriñ Touba rek sëñ Fallou nga ca biir sëñ Fallou nee na mësta ber daray boppam dëkk nee na dëkk bu am ay armeel sax sëñ Fallou amu ko jéemuta ber daraam léppam rek kon loola mu jël jël léppam seel ko ci sëriñ Touba nun it noonu lañ def ci moom waaw nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax yàlla may leen gudd fan may leen ak wér may leen ngeen bokk ci jiwu sëriñ Touba wi ba yëf yi bis buy egsi ci seeni loxo ngeen mën koo téye bu baax na ngeen góor lu baax mbirum sëriñ Touba moom jikko rekk la jikko mooy nit seen bàyyi li mu am lépp li ko may ginnaaw dogalub yàlla jikko ju rafet nee na kon ngeen góor góor lu baax nee na li mu wax ci sëñ jiili lay wax ci sëñ Mamor la la ak amano wa amilu saaliyaati nee na moom mooy wa amilu saaliyaati sëñ jiilee la siina sëñ maamoore amano moom muy wa amilu saalihaat yi nee na kum neex na nga wa tawaasaw bil aqi wala wa tawaasaw bi sabri rek waaw <laughs> nee na fu neex waaye nga jël nu copp waaye nee na moom foofu la la tippoo moom nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax di leen nuyu ci turu Serigne Basirou moom Serigne Fallilou mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi ak sëñ du Fatah mi yor kàddoom kuy wax ci kër fekk ñëpp dañoo jël seen kàddu teg ko ci nit booy yëkkati kàddu war nga koo tudd moo tax mu tudd leen fi tudd leen fi ak sëñ Mourtala mi nga xam ne looloo moo ko fi indi ndax moom fu mu waxee ci sëñ Muntaxa tudd sëñ Abo tudd sëñ Basiiru jëwrin wax ci kàddu sëriñ Abdou Fatah mi yor kër gi nee na kon moom mi nga xam ne mooy naat jëwriñaat teñ topp ci ginnaawam saa su yëkkatee kàddu noonu la koy waxe moo taxit moom it noonu la koy waxe rek tey jii de ñépp fi waroon a yendu si fii ku ku ku ah ku fi teew si witam saxol teew na fi ndax dañ ko daan def ca Touba Bogo ak di ko woote fu bari sa njiini nit ku gore la nit ku bëgg sëriñ fallu la ku rafet jikko la nit ku baax la baatu baax nag moom lépp a ngi ci biir nee na sëriñ jiili baax na lool baax na nee na moom xam na ne sëriñ jiili baax na baax ci jikko lay doon ak yéene ñëpp jàmm il faut que mu am jàmm ngeen góor góor lu baax sëriñ fàllu am ngeen fondation teg ci kawam rek mu dem moo am yàlla na leen yàlla lafal cet yàlla bu seytaane am ci seen biir aw yoon nee na su doon wax ci sëñ jiileeg sëñ mamoor ba jant bi soo day gudd te du jeex mukk waaye mi ngi sant bu baax bokki taalibe yi nag ci turu sëriñ Abo ndax wax naa ne day bi mu fi toogee jataayu sëriñ Fallilou ba tey ndigal lu ko ko fi nekkal sëriñ Touba ma sa digal rek ndigal li bu duggee ci kër sëñ jiili du fi des ginnaaw mbukk te yéen a ko def yéen dongo yi nee na jërë ngeen jëf nee na ñu gore ngeen ñu baax ngeen waaye wax nañ ne nee na sëñ Moustapha Mbar mu sëñ Modou Aminta Fall mooy wax ne lépp lu yàqu gore yee ko yàq gore rek moo jafe kon nañ gore nee na gore mooy bàyyi leen fii ngeen toog kenn ku ne xamoon na na sëriñ jiili meloon waaye mu dem ngeen suuxataat ginnaawam taxaw njabootam ba bu sëñ jiili doon def benn ñoom ñu mën a def fukk jërë ngeen jëf nee na mi ngi koy sant ci kàddu sëriñ Fallilou di ko sant ci kàddu sëriñ Abo mii jëwli ni sëñ Fallou di ko seereel sëriñ tubaab mi nga xam ne ku jëf moo tax yal na leen yàlla fay yéen dongo yi yal nañ jekku ndigal nee na mi ngi sant soxna yi bu baax a baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ ji li liggéey bi nekk seeni waajur yéen nee na ñoom it ñu gore lañ ñu bëgg lu baax lañ ndax ba sëñ ji li demee ba tey ñi ngi sàmm ngor googu di mott li wëllëre yi di sàmm kër gi itam nee na soxna yi ñoom it jërëjëf nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax yàlla na ngeen am ngërëm ngërëm rek mooy lépp njaboot gii nga xam ne ñooy njabootu sëñ jiile sëñ Mamor nee na yàlla na yàlla teg loxo ci ñoom yàlla bu saytaane am ci yéen wàll bokk yi fi teew itam mbàkke mbàkke yi ak busa busa yi ak mbooleem ñi fi teew ñëpp ñim xàmmee ak ñim xàmmeewut nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm bi muy ñëw mi ngi ànd ak sëriñ Fallilou Bousso moom sëñ Ousmane Bousso nee na sëñ usmaan ak sëñ Fallou moom kenn ku ne xamoon nga ko foo ma sa gis sëñ Fallou rek sëñ Ousmane Bousso ci pegam la si naag amonoo la ñu woon ànd ak as ndongo su ndaw su mel ni man rek nee na sama baay moo doonoon daana xam naa seen kilifa seen mi ngi noonu daal <laughs> ak sëñ Mamoun Ñang moom sëñ moom sëñ Xaadim Ñang nee na moom ci ci délégation bi la ànd nee na kon mu mu nuweele leen ak nun nee na dégg na li sëriñ Abo wax sant nañ ko bu baax a baax gërëm nañ ko nee na yàlla na la yàlla lafal cet nee na lii mooy mbir mi mooy toppante sëriñ Abdoulahat sëñ Falloo ngi nii sëñ Seexuna sëñ Abdoulahat ngi nii sëñ Baara sëñ Abo ngi nii nee na ngeen toppante rek toppante leen rek kenn ku ne ci yéen nay gis morom ji sëñ jiili rek bu xoolee daal nay gis sëñ jiili rek nee na ñaari kilifa la yàlla tànn kilifa gii mooy jiital mbooloo mi yóbbu leen kilifa gii mbooloo mee koy jiital yóbbu ko nee na lii mu leen di wax aw cax la ku ne yaa xam sa kilifa kenn ku nekk li ëpp solo ci yow mooy na li ngeen yor moom na dem rek na ngeen fexe ba li ngeen yor dem ak nu mu mën a demee rek fexe leen mu dem ku bedd ku dem toog feneen ndam du am mukk nu mu mën a mel te nii sëriñ Fàllu mii mel nee na baax na lool de ku jub la nee na jub mooy lépp alxuraan jëpp baat booboo ci xam am njariñ muy xoddaan rek baatub jub nee na boo ko génnee dara desatut ci alxuraan sëñ Modou Moustapha moom sëriñ Falilou yàlla na yàlla dolli yërmande ci moom nee na mas na koo nett li bis ne ko daa am bis mu ñëw ci sëriñ Falilou am lu mu koy tawat bi mu ko waxee nee mu ne ko waay ji as gor day gore waay koo xam ne sa teraangay àdduna ak sa caabi àjjana sa tàbbi àjjana sa yoon nekku ci benn baat rek lañuy ñuy ci yéen mu bëgg leen a tër xanaa xamoo ne àdduna ñeenti teraanga rek a fi te ku bokk ci Serigne Touba Serigne Touba gàddu na la bu jëkk bi mooy taax yoo dëkke ak daamaar yooyu war ak soxna yoo dëkkoo ak ponkal yoo xam ne dañ lay xëy di la liggéeyal te Serigne rek tax nee na Serigne rek ko ko mën a am. àllaaxira itam jenn teraanga fa am. mooy tàbbi àjjana te wax sëriñ Touba nee na képp ku bokk ci moom warlu na la loolu benn baat rek lay sàkku ci yéen mooy xordaan baatub jub mu ne ko baat boobu de nee na dafa moom sëñ Modou sëriñ Fallilou dafa ñëw ci sëñ Touba di ko àbbu téere bu ñëw xaamuus mooy dictionnaire yi ñuy xoole mboolem baat yu jafe yi ci arab nee na sëñ Touba ne ko duggal ci néeg boobu yi xool waxande yooyu seetal ma ko ci ba xam bi mu génnee benn xamus indi ko ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko xoolal ma ci baat bu tudd huddan bi mu ubbee ba gis huddan mu ne ko baat boo gis mu ne ko baatu huddan laa gis mu ne ko baat boobu ku ci sax doo gàkk bay gàggantiku alxuraan jépp baat booboo ci la nekk laa rey ba fii huddan lil mu taqinaa ci tege lil mu na nag ñëpp moom lañuy ñuy seet te mooy ragal yàlla nee na leneen li ci des lépp ay détails la rek waaye boo génnee baatu xoddan man ngaa lakk alxuraan ji li ci des mooy ak jub rek nee na baat boobu rek lay jàngale kon nee na ngeen sax ci ak jub طفاني القدر لم ينحني در ولا أدناس وليس ينح جئة القناس كتاب ذي الجلال والإكرام قالتني وقادني مرامي مد لي القل غنى عن غيره وكان لي الحب بأعلى خيره ترسي عن الغضب والضلال رضا العليم الباسط الحلال فرحت سيد الورى بقطي وإنه لي رضا ذمتي لم يخفى كون هذه القصيدة حقيقة تعطي الفتى مقصودا هوت منافع السنين والشهور قانسة لوجه مالك الدحور وجاءني الجميل في دنياي ببصر مقلدا صنيايا ناديت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا